ñu bari dañ doon laaj njariñu bismillahi rahmani rahim bismillahi rahmani képp ku koy sikkar dix fois muy waaxidun saa boo jullee ba pare kaso moom doo ko dugg nit mënula tuumal ba dugal la kaso mooy bismillahi rahmani rahim dix-neuf fois képp kuy sikkar bismillahi rahmani rahim euh, trente-cinq fois sa biir néeg naafiq du fa dugg wala nga bind ko 35 fois takk ko sa buntu néeg naafeq du dugg foofu bismillahi rahmani rahim 787 bismillahi rahmani rahim bala boo koy sikkar chaque suba teel ngay sikkar 787 di génne nag saraxu gerte wërsëg doo tàggoog wërsëg te kenn du la mën a wor te lépp loo mën di doxe ci barke bismillahi rahmani yàlla dana la ko jox bismillahi rahmaani rahim boo ko bindee mille un muy junni ak benn nga bind ko ci baatu bismillahi rahmaani rahim nga boole ko juróom-ñaari xobu siréem ak juróom-ñaari xobu ngeer ak xorom ak tuuti lem di ko sangoo di di ko sikkar mille un at moomu moom xéewal danga ko am ubbeeku wërsëg lu ne dana la gana si si at moomu nga koy sangoo muy góor muy jigéen ba tey rek si njariñu bismillahi rahmaani rahim boo xoolee eh, bismillahi rahmaani bépp feebar boo mën a am si àdduna ak feebar ba lu mu garaaw garaaw garaaw boo jëlee bismillahi rahmaani rahim nga bind ko ñaar fukki yoon ak benn waaye dangay ngay dagga xaraf ba ñaar fukk ñaar fukk ak benn yépp mat nga boole kook tuuti xorom nga bu xorom sangoo ko bépp feebar bu mën a fekk si yow da koy dindi muy jinneeg muy rab muy liggéey lu mën a doon bismillahi rahmaani rahim bi daf koy toj ba mu jeex tàkk euh, bismillahi rahmaani rahim képp ku ko bind lii ma lay wax muy allahu mujibu muy cinq cent cinq euh, muy cinquante cinq mujibu cinquante cinq la euh, allahu soixante six boo leen calculé loolu da ngay jël lii dinañ si ñëw si yeneen vidéo yi